féliciter commité d'initiative bi initiative bi rafet na euh, je pense que ni ngeen ko doxalee également rafet na man j'ai tenu personnellement à venir maa ngi fii ci bi ak sama secrétaire politique donc yu mel nii ñun suñu organisation parti moom mooy patron bi du man Mais j'ai tenu personnellement à être la Habib fay et la C'est le secrétaire politique du Parti socialiste. C'est pour vous encourager. Cette initiative bi ngeen continuer ko ñu continuer di liggéey di réfléchir du ma ci sori nag peut-être que à l'avenir dinañu am yeneen jatee jotaay yoo xamante ni dinañu mën a développer bu baax a baax mais li ma bëgg a profiter tey wax ko fii mooy ñëw réew mi ci Benno Bokk Yaakaar xéewal la nañ ko gisee noonu xéewal la Macky Sall ak Idrissa seen daje Dakar ba ñu joxante loxo ba réew mi ñëw réintégré Benno Bokk Yaakaar nous devons tous nous en féliciter parce que du def lu dul jëmale Benno Bokk Yaakaar kanam li ci des nag ñun ñëpp ñoo ko bokk li ñu ko bokkee mooy lan mooy il faut ñu toog ñu wax il faut ñu toog ñu waxtaan mbir mi loolu moo koy sottil toog wax toog waxtaan beneen bi mooy jiboo tant que féewaloo mi ngi am du ñu gagné dara il faut loolu mu leer mbirum Thiès du mbirum département mbirum commune la département bi réglé na Augustin ko téye kenn contesté wu ko problème bi fii la au niveau de la commune il faut que fii ci commune bi nit ñi nekk benn juboo ku nekk di bañ a gis sa bopp di tuuteel sa morom tant que ñu ngi def loolu on aura toujours des déboires dans cette commune la il faut faudrait que ñu bàyyi loolu yëpp ñu bokk tiire euh, tirendoo dans la même direction regardendoo dans la même direction tirendoo daal la même direction su ñu ko defee mbir mi dina sotti ñun ñëpp li ñu bëgg dinañ ko am yàlla nañu ko yàlla defal maa ngi leen di ñaanal ngeen continuer ci seen. mon jeune frère monsieur Lamine Ngom Mamadou Diène Mambay Guèye ak Samba Fall defe naa ñooñu ñooy le comité ak euh, ak sama frère euh, euh, le comité d'initiative di nuyu les secrétaires généraux de parti yi fi nekk. les responsable de parti yi fi nekk di si jiital le doyen euh, Souleymane Ndiaye Brin la camarade le frère monsieur Ousseynou Ousseynou Kayta di nuyu ñëpp di belal nag nuyoo yi les femmes yi teew ci mbooloo mi di leen nuyu yéen ñëpp di ne bu ma bu ma sañoon ku si nekk si yéen ma fekk leen fa ngeen nekk jox la sama loxo jaar seen tur di wax nag maa ngi saluer l'initiative maa ngi ñëw ni c'est vrai que je suis au conseil des collectivité territoriales mais li tax ma teew fi tey mooy je la secretaire général de la délégation de la l'AFP au niveau de Thiès Thiès bi ñu nekk Thiès est bi may ñëw maa ngi ànd ak euh, suñu doyen monsieur Sam euh, Samba Bari maa ngi ànd ak madam madame Ramatoulaye ñaan euh, su doon mën na sax mu nekk duma bàyyi kenn ci gannaaw mais format réunion bi moo laajul loolu ma ni kon nag bu may ñëw naa ànd ak doyen du parti ak la femme du parti donc looloo dégg naa ni sama sœur euh, Marème Tunkara mi ngi fi teew maa ngi ni di nuyu donc euh, may wax ni rek ñun au niveau de l'AFP on réaffirme notre engagement dans Benno Bokk Yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar moo ñu jikk wax ngeen ko léegi vous avez fait la rétrospective l'historique de la coalition Benno Bokk Yaakaar 2012, nous avions fait six élections. 2012, la coalition Benno yaakaar a, est sortie toujours victorieuse des élections. Donc, loolu lolo, nous saluons notre compagnonnage dans Benno Bokyakar. Di wax nag dañu wara def pour l'unité et la cohésion de Benno Bokyakar. Di saluer wax naa nako cette initiative ni di ni di saluer le format de la réunion parce que les initiateurs woowoon naa leen ne leen femmes yi il faut ñu ñëw massivement ñu participer à la rencontre parce que femmes yi xam nañu liggéey bu am solo bi ñuy liggéey ni ci base bi xam nañu liggéey bu am solo bi ñuy liggéey dans les comités électoraux pendant les les échéances donc sama xel mu dal bi ma ñëwee fekk sama sœur yi ñoom ñépp macha allah ñu ngi teew may may wax ni wax nañ ko de rappeler l'unité et la cohésion de Benno Bokk Yaakaar il faut que nous allions les ran serrés loolu moo ñu jikk lool moo ñu mën a garantir la victoire ma je ma je jeexale si les perspectives wax nañ ko bennoo bi Thiès fii dañuy dañuy wootee les élections ni bu paasee ñëpp toog seen kër donc ci perspective yi mooy nañu continuer lii nañuy def des rencontre ne serait-ce que chaque mois d'ici les élections yi ñëw ñuy mën a rencontrer ni di partager di échanger l'autre dans les perspectives il faut qu'on organise les jeunes jeudi bi passé y a le conseil présidentiel pour l'emploi et l'employabilité des jeunes il faut qu'on organise les jeunes pour que financement yi yiy ñëw les emplois yiy ñëw suñu jeunes yi mën ci gis seen seen seen bopp il faut qu'on organise les femmes dans ce sens-là pour ñu am si financement yi je vous remercie. convocation bi ak seen présentation bi c'est remarquable vraiment man daal loolu laa bëggoon wax loolu mooy sama sentiment je suis très content très admiratif par rapport à ce que vous êtes en de faire merci.